Serigne Cheikh Konte ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout traditionnel nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ciy dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar ba feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram xaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du Serigne Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi Serigne Cheikh Konte Fonte ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk. symbole la donc sur l'éducation donc euh, au-delà de cela doomam euh, bu góor ñu ñoo bokk sëriñ ñoo bokk daara ñoo bokk wasila donc euh, chaque année këram dañ fa daan def. préparation màggal safar donc euh, daan nañ ko organiser foofu puis daan nañu am amoon nañu relation yu bien ko donc symbole la woon foofu quoi vraiment. Euh, démb euh, amoon ay manifestations amoon ci dëkk bi dëkk bi nekk di daal. Hmm. ginnaaw bi mu génnee àddina ñu jot ay nii lacrymogène yi ñoo ko mujjee parce que mu ñàkk ba xanaa naam feebaroon na. Hmm. yow nga nekk koo xamante ni da ngay décrypter nga xamante moom mooy information Mm. di jàngat euh, information boobu nga xam ne jot bon ce qui est regrettable mooy que ni manifestation bi mënoon na am parce que euh, droit la ci peuple bu fekkee ne am na lu ko metti constitution bi may na ko pour mu manifeste te normalement dañ ko waroon yëgle rek ñu autoriser ko encadrer ko donc euh, bal mënoon na bañ a tàkk tamit sagar xeej donc je pense que c'est de l'injustice ñu jàpp population bi di leen maate heure boo xamante ne am nañ lu leen metti ñu wax la ñu bëgg ko exprimer mm-hmm. du ñu am fu ñu ko exprimer loolu moom euh, dictature la illégalité la et violé constitution bi la quoi donc on regrette beaucoup parce que fitna kenn du ko rey fitna kenn du ko yee léegi nag problème bi mooy bon ñu dañu jàpp ni c'est l'État qui est responsable et les le préfet parce que tamit loo xamante ne droit citoyen yi la bu fekkee ni euh, da leen ko privé ba pare wëlbatiku Euh, moo am ay jàmmaarloo ba mu jur euh, ay nit di décédé parce que place de la l'Obélisque place de l'Obélisque tamit foofu il faut que ñu xam ne ay nit ñoo fa dëkk quoi ci quartier populaire moo ko wër donc te euh, bu fekkee ni événement dafa am bu amee dérive rek dafay def conséquence ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo wër quartier bi moi j'habite à côté rue 27 angle 28 Euh, ak ginnaaw rond point centenaire bi sama buntu kër laa taxaw mais lacrymogène bi xaw ma fan la bàyyeekoo man gisuma alkaati gisuma dara dama jékki-jékki rek gis lacrymogène sunu kanam mu tàkk xamuñu fu mu bàyyeekoo donc loolu euh, nekk na lu nga xamante ni euh, lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy jàmbat la et puis tamit rond point centenaire Gibraltar bi foofu jeunesse su Médina bi saafonte nañ fa xeex fa ak force de l'ordre ñu ñëw dugg ci biir koñ yi. ba ci sunu biir kër euh, xale daw na dugg ci biir kër gi alkaati bi du tëju ci néeg alkaati bi fekk ko ci biir néeg daal di koy tijji jàpp ko jénnee ko te ku daw ba dugg démb Medina donc ku daw ba dugg ci biir kër war nañ koo mën a bàyyi daal donc euh, yooyu yëpp damay gis ni vraiment euh, répression bi metti na trop ci ci peuple bi ak jeunesse bi te yaakaar bu tas la ba pare wëlbati ko te li ñu gis mooy que ni xar nga rey ko ba pare ne doo ko doo doo fi wéex ko loolu c'est impossible quoi loolu la ñu Macky Sall def ak euh, l'état quoi instant suñu toll nii privé nañ ñu suñu droit ba pare wëlbatiku ne duñ ko fi jàmbatee loolu amul fenn ci àdduna ko après maam góor gi am na ñote nañ deux pertes humaines ñu leen di ñaanal aussi yàlla yërëm leen euh, fële ca Saint-Louis ak euh, ki nga xamante ni moo dëkk Pikine ginnaaw raay loolu aussi ban jàngat nga ciy def. waaw jàngat bi ñu ciy def mooy que ni lépp état bi moom mooy responsable ak décret ak. député yi nga xamante ni ñoom ñoo voté loi bi ñoom ñooy responsable li parce que tamit bu fekkee ni député yi dañ sont représentants du peuple ñuy voté foofu ay loi yoo xamante ni c'est contre l'intérêt du peuple donc ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, responsable yi mais comme c'est des la majeure partie sont des corrompus donc euh, nii rek la mën a demee quoi parce que député yi nekk foofu sàmmuñu intérêt askan wi li ñuy sàmm mooy seen intérêt personnel. parce que xam nañ ni élection bu amee pouvoir bi bu daanoo dañuy dem directement sur euh, tas assemble defaat yeneen anticiper élection municipale yi euh, parlementaire yi te su boobaa ñoom ñëpp ñooy perdre seen seen seen seen poste yi moo tax lañ doon défendre keroog. du pour du pour dëkk bi pour ñoom seen intérêt personnel la ñun peuple population bi ak jeunesse comprendre nañ nu mu demee xam nañ lépp xam nañ lépp xam nañ ni euh, politique politicien bi moom moo fi nekk ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa intérêt personnel ngay sàmm mais du du intérêt peuple bi loolu leer nañu ko quoi. tendance bi ni mu renversé woon nii est-ce que gëm gi ni rapport élection bi dina mën a nekk. bon instance yu ñu toll nii ñi ngi xaar conseil constitutionnel xam lan lay décider parce que instance yu ñu nii man je dis que ni euh, cause bi ñu wax cause bi tax nga xamante ni moom la ñu wax nii moo tax. Euh, ñu ñu renvoyer kii bi parce que man je dis que ni Karim wadd euh, à part qu'il a menti le peuple mais il a accusé le premier ministre du Sénégal accusé wul euh, Amadou Ba c'est le premier ministre du Sénégal la accusé tu vois léegi président de la République au lieu que moom mu défendre son son premier ministre mu mu mu mu mu euh, accusation yooyu ubbi Euh, ak ak les parlements députés au benn Bokk Yaakaar yi ñu ubbi euh, enquête parlementaire te loolu defuñu ko ci Covid bi defuñu ko ci les 21 morts yi amoon deux mille vingt 2021 defuñu ko ci les. xale yi dem ci géej gi defuñu ko aussi ci xaalisu Covid bi mais ñu koy waaw man je ne sais pas Karim Wade lan la ñu defal lu jar ñuy ñuy reporter sunu élection quoi bu fekkee ni ñoom politique politiciens yi ñoom ñoo am problème seen biir nañ ko lijjanti seen biir mais peuple bi maanaam on dirait que ñoom dañoo fekk li nga xamante ni c'est le sacré la partie sacrée de la république ñoom ñu désacraliser ko quoi dafa mel ni loolu la quoi donc ils ont franchi les lignes rouges quoi. Merci. donc euh, loolu mooy loolu lañ gis quoi. bon maam góor gi di ko ñaanal euh, gudd di ko ñaanal euh, yàlla yërëm ko xare ko àjjana. kañ nga ko mujjee gis. bon comme ni ma la ko waxee si 18 safar bi. Mhm. parce que safar bi doomam doomam ñoo bokk daara dafay organiser safar. moom moment boobu la ñuy gisante à part loolu bon koo xamante ni ku foo mësaan jaar buntu këram faas fekk ko mu toog ci buntu kër gi. Eh, li ma ci gën a kii ci moom mooy que ni boo ñëwee nuyu ko ziar ko pour dem noo def mu téye la benn cinq minutes wala dix minutes boo xamante ni daf lay rencontrer histoire. Mm-hmm. di la jox ay leçons de morale di la maanaam patriote la woon daal. Mm-hmm. patriote la woon loolu daal xam nañ ko ci moom boo mësaan yàkkamti sax da nga koy teggi. Mm-hmm. parce que chaque fois day jël temps di ko sacrifier pour euh, l'éducation morale et spirituelle. pour euh, pour pour jeunesse bi. bon Médina ñoo ñàkk Fass moo ñàkk Gueule Tapée euh, Dakar Sénégal ñëpp ñàkk quoi. te vraiment metti nañu trop quoi. metti nañu trop mais li ñuy def mooy muñ xam ni bon lii dina bokk ci bilan bi nga xamante ni moom la Macky Sall di yóbbaale quoi. ok jaayeen jëf jërëjëf. waaw yu

Ibrahima am dëgg si la ci waaw loolu la yàlla dogal

Cheikh Konté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout la nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ci dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar ba ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram listixaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay càngat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi sëriñ Cheikh Konte ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk